man bi ma déggee ñu naan ay Pape Cheikh Diallo góor jigéen la dama ne non man góoma loolu. Mhm. mais bi bi jabaram bi mu njëkk am doomu Aïda Patra. waaw moom ma njëkk wax na ko dafa moom dafa ñëw ci bunt bi. Mhm. fekk jëkkëram ak góor. mu mhm. ñaan baat mu takkaat beneen jabar bu dëkk Suède. kooku tamit bett ko ak góor kooku ñaan baat. mu takkaat kiyaa bii ma lay wax nii kiyaa. waaw ki mujjee takk. kiyaa bettaat ko ak góor.